RTV Dakar yéen ni abonné goul, abonné leen gaaw bu len faté beus close notification bi ndax moy tax ngeen di jot sunuy vidéo jàngeen jëf. Na wax Serigne Alioune Guèye ni bu ngeen doon nit ñu wéx. ba légui dekk bo dem fekk fa seen statut bu ngeen doon nit ñu wéx. dictionnaire bu ñu ubbi gis ci seen photo. waaye comme yàlla tax ngeen di def moo tax ba léegi ñun xamagunu ki jëkk a jàngale mimara te muy arab ku arab waaye arab miim rekk lay wax walla miim ra waaye ci la jëkk ni mimara pour wolofal ko ba tey xamuñu kan la basin ni mara lif lam ra ablon ku mim li gwaj mu ya mi mara kuko sos kuko sos parce que budé arab yi wa lil bu dee arab yi boo nekku sos tomb ñu ne xajjal ñu ni ku sos masque ñu ni abul aswadi duali ñu nga leen fonk ba di leen wutalaay set ah, waaw وللحجاج والدؤلي نقط وشكل ñoo xam nañu ko sos tomb xam nañu ko sos masque waaye bërki démb damay nafar liñ fënt léeg-léeg dama koy def ndax dama koy fàtte ba ak si ci tikkenit fàtte te naa ko laaj wallahi tikkent liif laam adam dellu adam dellu miin del ra baajoor baajoor taajoor taatànk alkubiir ay ndégal ay ngimintil पैगंबर नहीं मैं कोई एग्जाम नहीं रहिए Mm-hmm. Munabanya banyak topo Kuna banyak topoto. Bimo Dino gënee Sering ndaw Serigne Abbas Sall purman ñu Purman léegi Pas nga pour man deewul pour saga dañuy waxtaan ci yu mel noonu gis nga ci la defa baa ba iyaam bi ma leen doon wax mu wax ma ni nëbbahta نبهت غافلنا علمت جاهلنا نبهت غافلنا علمت جاهلنا تحذو بذلك فينا حذو دليل تحذو بذلك فينا حظوة خير أبا بالقصر بالقصر ها بالقصر بالقصر مقصرة doomu daara daara rekk mooy alala du tee lu nekk na dugg wante dara moy alal ومنبه الغفلان ومنبه الغفلان من غفلاته او موقظ الاسنان من سنة الكرم di ko wax ma nga ca désert ba amé clash ni ko fa way yalla ko xir dafa man way su dee woy man rek lay way bu mu jëkkee dégg sama yëngu-yëngu ci at ci wàllu politique ba sama arrestation fi la ko fekk ba mu delloo ñemewul wax ni dañ ma arrêté ndax suma turandoo tax sama maam bu fa nekk bokk ci ak pab تنيتكو يخلى نيكو مع حال الشيخ مونيكو اختار ما اختار المبرأ يوسف ñemewul wax ni dañ ko emprisonné ko il a choisi ce qu'avait choisi le prince des innocents, Joseph. سيرى بعاقبة الأمور كما يرى ها pour wax la ni ci daara bànneexu àdduna yépp moom Sëriñ Babacar Si xam nga demul Màkka de seen war a daan wax Alaaji Babacar Si ma ne ko demul Màkka mu ngi ma nga ni ma ne ko demul Màkka ma jóge ma jóge ñëw di ko seet fekk muy àggale téeréem boobu mu def ci aj Makka téere bu mu def ci aj Makka te moom ajiwul Makka mu ni ci nit ñi dey tax nañu ma sàggane sama àll booba daayira yaa ngi sikkar kër gi fes tay ni nit ñi day tax nañu ma sàggane sama alluwa ma ni ko ngay jàng guddi mu ni kon na maa def sama naafila mu ni ko nga séddale ko genn wàllu naafila genn wàllu nga jàng parce que ñoo bokk yool ñoo bokk yool ba ni guy ji boroomam bàyyiwul àlluwa ñu ngee jàng daan wax ni ko da nga waroon daje ak université Bagdad mu ni ma bu Maamun ma ni ko déedéet ma ni ko Maamun université modèle réduit la ci université Bagdad euh, ma ni ko Bagdad a woon kër goo dugg faculté la dëkku ba yëpp di université takes a method. Jalan dan wak al uslubun maamari ak bu ibnu taba taba ak ya من معماري تفصص moo daan jàngal jàngalekat moo tax benn fan lay jàngale ci semaine bésu àllarba comme bisu àllarba fête la ci université yi ñiy jàngale ñépp bisu ba la ñuy jàngi kërëm léeg-léeg nga ñëw fekk lu mat juróom fukki baax la juróom benn fukki baax la téeméeri la te wax naa ni mooy Rolls Royce àllarba balay jangale lutax parce que talatu ci guddi lay tëdd jabar nee moy drogam RTV Dakar yeen ñi abonné gul abonné leen gaaw bu leen fàtte beus notification bi ndax moy tax ngeen di jot sunuy vidéo jàngeen jëf